dal leen ak jàmm mbokku internet yi kawteef lu doy waar xale bu jigéen bii di Aida Coly nee na bi mu amee ci lu toll ci fukk ak juróom benn at ba léegi yaayam daf koy buus ngir mu tëdd ak ay góor waxuma ko de ay kàddoom la Aida Coly nee na sama yaay moo may forcé ngir ma tëdd ak góor yi ba tey ci kàddoom ma Aida di wax tey ci mbir mi naka la demee maa ngi tudd Aida Coly am ci lu toll ci fukk ak juróom ñeenti at nekk ab célibataire maanaam awma jëkkër waaye jot naa am doom bu góor bu ñeenti at daanaka at a ngi nii maa ngi fii ci Maison Rose bu nekk ci dakaar fii ci Géejawaay dama fa daw làqu ngir njàqare ak naqar bu ma am ci jafe-jafe ak sama waa kër ca Ziguinchor jafe-jafe bi yépp mu ngi tàmbalee ci sama diggante way jur ya gannaaw si nga xamante ne ñoom ñaar nekkoon nañ ay ndaw di ànd jamono jooju sama waa kër maam ñi jur sama yaay dañu bañoon sëy boobu bëgguñu woon sama yaay ànd ak sama papa mi nga xamante ne chrétien la looloo tax ba mu ñëwee di ñaan si samay maam ne mukk duñ ko mës a may soxna ci coow loolu yépp man ci laa juddu ci sama diggante papa ak yaay ci loo xamante ne teguwul ci say waaye sama papa nangul woon na ne moom mooy sama baay ba daf ñoo mujj beddi man ak sama yaay bàyyi ñu dem yoonam sama mam bu góor bi jur sama yaay am lu ko métti lool ci mbir mi ba tax mu dëkkee di fitnaal sama yaay ngir mere gun ko mere moom nag sama yaay demoon na ba sumay may nampal sax dafay mujj làqatu ngir rekk di daw coowoo ak wax yi nga xamante ne daan nañ ko teg ci deram ba mu demee mënatul muñu métit yi nga xamante ne ñu ngi ko teg ci kër ga ca la dal di génn tukki dem Guinée Bissau ca foofu sama yaay daf ma doon yóbbu ngir ma cagatu ndax ñu mën a am lu ñu dundee daf ma daan noot di ma forcer ngir ma tëdd ak góor ngir rek ñu mën a am boolu ceeb bu ñu dundee dundin boobu dem na ba def ma beneen nit ma nekk ab ñànk soo xamante ne xamul fu muy taxaw tux sax daanaka dama ko daan def bi ma amee fukki at ak juróom ca lañ ma violé ma daal di cay jëlee ab ëmb sama yaay jël ëmb bi jiñ ko góor goo xamante ne daanaka xaw ma ko musuma ko gis ndax sama yaay jàppoon na ne loolu moo nekkoon solution bu war mën a tax ñu génn ci tolof tolof yi ñu nekkoon waaye man nangu woon dama bañ ba tëj ca tëdd ca naaj ba noonu dañu mujjee génne ca kër ga nga xamante ne fa la ñu nekkoon foofulee ca Guinée Bissau ñu mujj dëkk ak di fanaan ca mbedd ya coono ak jafe-jafe yooyu ñu amoon ëllëboon na lool te jaxase sama yaay lool mu dëkk ci tiit ak njaqare ba xamatul nu muy def ak fu mu jëm mujjantal ga dafa mujj di cagatu di tëdd ak ay góor ba noppi di dëkk ci di ma wax ne mënatul toog benn fan te séqul ak góor ñu ne déeta waay mu bëgg ma caa dugal dem sax ba di ma daal di tëdd ak ay góor donte dama ëmboon ba diis ma demee ba jàq tiit mënatuma dékk yooyu le métit te amatuma woon a benn kaaraange ca laa fàq dal di daw génn foofu yëpp ngir ut si wàllu fii bu sama yaay melee ni ak di jëf-jëf yu ni mel dafa fekk ne sama papa moom moo daw ay responsabilité am looloo waral lii yëpp beddi gum ñu bedd dem moo ñu dugal ci tolof-tolof yii yëpp looloo waral ba jamono ji gis góor wala nekk ak góor ak gis samay butit sax moo ma gënal nekk ak góor góor rek laa bañ lii mooy kàddu ko Aida Coly jërë ngeen jëf